it di dellu si ci li waxoon ci njalbeen gi mooy li ñu waxoon ne daanaka mënoon nañ ci bañ a teew ndax xam nañ ni kenn ku nekk li nga defoon daaw lu ko raw ngay def da nga def lu toll ni moom baalu baalu ko raw ngir yéene pas-pas ñu dégloo wax yépp nag kenn ku nekk ñi nga seede ak ñi nga waxe firndeel nanu ni lanu yaakaaroon jort ko loolaay li loolu mooy kenn ku nekk yéene ji nga amoon ak pas-pas ba da nga koo dolli waaye delloo ci kanam euh, kon nag euh, li ci des rek mooy ñu séntu leen la trois di talaata ci kër Cheikh Abdou Lahad ñu xool yi ñu tënkoon fii yépp nag ba xam lu ci ne fu ci toog euh, bu ñu àggee nit sëriñ bi mi ngi nuy xaar incha allah ni jataay bi tëdd lépp danañ ci wax ak moom leeral ko pas-pas bi ak yéen digganteem ak taxaway su ngeen di ñew def réunion évaluation bi fa ngeen koy fekk lu ci ne dana xam fiñ ci tollu bala bisba ba nak euh, gouverneur ñu beral la sa cant bopp bu wér ci taxaway yi yaak ñu ko bokkal ñëpp euh, mbirum presse bi ñu sant nit ndax seen yene ju reuy ak seen pas-pas bi nga xam ñu ngi koy def at mu jot ci seen diggante Cheikh ab Lahad ngir marqué bu mu leen marqué ndax ñi ci ëpp ci jamonoom la leen yàlla feeñal daal euh, léegi nag wàllu euh, li ñuy def ci màggal bi ci documentaire yi nga tudd ak plateau yi ak yëpp commission culturel bi di Abdou Lahad Diakhaté sëñ Abdou bu Bousso mi teewal leen fi ñoom danañ déplacé wu jokkoo ñoom jox leen seeni téléphone yañ ci war a def yëpp ñoom lañ ci jokkal danañ ca taxaw ak site internet yeeg yëpp rek ñun ñëpp ñu maase ànd liggéey liggéey ci sëñ bi ba nga xam ni sëriñ bi nga xam ni moo na fi yabal nu wóotu ko fi te dara itteelu ko lu dul jëmmi Cheikh Abdou Lahad lim ciy liggéeyal ak lim ci bëgg ñun ñëpp commencé am ci ndam te euh, toujours damay wax ni loolu sama xalaatu bopp la damay wax ni raison bi ku ñu fi affecté nga ñëw di fi liggéey man nga am ñaari cër. benn bi mën nga liggéey ci sa service waaye mën ngaa liggéeyal Seexal Xaadim loolu mooy yéene nga koy defee la ngay def nga defee ko yéene da nga ci am pay payu sa Seexal Xaadim loolu nag ñu ngi leen ciy soññ yéen ñëpp te xam ni la weesu woon na mel rek li ñuy dëgg malaat it noonu lay mel ndax kenn ku nekk ci yéen yéene lay demee ak pas-pas kon ñu ngi leen di sant te di leen séentu ci taxawaay yëpp jërë ngeen jëf jërëjëf sëriñ bi ñu ngi lay